بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة mbokki ñu seetaan ci àdduna wërngal këpp نيجي ngi leen di nuyu waaye nuyoo bi ak kàddu gi ñu ngi koy jëlee ci ndigalu suñu قديم صاحب الفائدة الإبراهيمية للشيخ إبراهيم ابن مولاي الشيخ محمد مأمون ابن مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نيس مبكي ñu ngi dellusiwaat fii ci salle bu yanj bi comme ni ma koy waxee jamono bu nekk te yàlla ñu fi yàgg teew waaye yàgg teew ci suñu ron sëriñ bi nga xam ne ku ko xool sa xel daj alquranul karim ku ko xool sa xel daj Gaza bal al Filistin waaye ku ko xool itam sa xel daj borom ana nafs wal afaqu ma raaytaha taraani muy Mawlana Cheikh al Islam Al Hadji Ibrahima Niass mbokk yi ñuy waajal bis bu mag boo xam ne tàmm nañ di ko amal 15 novembre buñ ko waxee nag ni ma koy waxee toujours borom bés yi bésam ñëwatina muy Cheikh Mouhamadou Mansour ibnu Mawlana Cheikh Mouhamadou Mamoun Cheikh Ibrahima Niass kooku nga xam ni dundam gi yëpp ko xidmal xadara al ibrahimiya waaye jaaree ko ci ron magam ju baax ji duñ ci sori mukk ndax am na kàddu yu war jub teew na fii ki nga xam ne moom moo di Seydi Ibrahim di sëriñ daara xam naa dinañ ñëw léegi ak moom ci kàddu yi waaye itam muqaddam bu mag di Seydi Eliman Kouaté di muqaddamu Cheikh Mamadou Mansour waaye tamit xam ngeen ni sëriñ bi bi mu teewee war a wax wax ji yëpp moom moo ko moom euh, bu xasee wax lépp jeex na waaye cërale na ki nga xam ne moom moo di taawu Cheikh Mamadou Mansour di sëriñ Mouhamadi Mamoun ibnu Mawlana Cheikh Mamadou Mansour ibnu Mawlana Cheikh al Islam Haji Ibrahima euh, ki nga xamante ni moom moo di. Ya, rakam ju bax ji di Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Maulana Cheikh Mamadou Mamoun mo ngi ni tew uh, di kalifa gu yalla baxal di borom yitte lepu mu lo ki nga xamne mom modi serignam magam di serign ñep di magu ñep di xaritu ñep muy maulana Cheikh Ibrahim ibnu Maulana Cheikh Mamadou Mamoun xadimu saaxibil fayda kon kaddu gi. alhamdulilah warahmatullah. wa ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak jëmmam waaye di ziyaare ziyaare bu sell euh, di alxalifa sëriñ Mouhamadul Mamoun di Cheikh Ba Mouhamadul Mamoun Ibrahima Niass ñu ngi lay ziyaare ziyaare bu sel di la wàccee ci sa wàccuwaay kàddu yi sax mënoon na ba a ñàkk jóg waaye dañoo jëlee ndigal ci suñ sëriñ di Cheikh Baye Mamoun Niass ne jotal ay kàddu yu fasante ko ci xew-xew boo xam ne ci lañ jëm muy le 15 novembre di tombel ba ci àjjuma fële ca Dakar ci Nord Foire man nag man maay Elimane Kouaté di muqaddam ci cheikh Mouhamadul Mansour di waxee ci kàddu buntu taalibe yi di yëgle tamit ci buntu taalibe yépp fépp fuñ mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di oo ci bés boobu rawatina daayira ahbaabu cheikh al islam alaaji Ibrahima Niass ci ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci tund yu fasantu ko fii ci Saalum ak fii tamit ci Kaolack sun kàddu su jógee kàddu ndigal la waaye kàddu Cheikh Mouhamadul Mansour ci kàddu yooyu tamit la ñuy jotalee mboolem koo xam ne soppe nga ngay taalibe wala nga amante kóllëre ci ñaari buntu yi nga xam ne ci waajuram di sëriñ Mouhamadul Mamoun waaye tamit di Cheikh Mouhamadul Mansour ñu ngi oo mboolem taalibe fi ñu mën a nekk ci àdduna bi rawatina ci tund Saalum ñu ngi oo waa Sanc Amat Fall taalibe yi fa nekk di oo waa Misra di oo waa tund Gentikey di oo tamit waa Cubbeen di oo mbooleem tund yi nga xam ne ñu ngi nekk foofu ci ay dëkk yu fasantikoo rawatina Taïba Niassène nga xam ne mbokk la xam ne tamit foofu dëkk Maulana Cheikh Ibrahima Niass la ñu ngi oo mbooleem taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di oo mbooleem yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Kaolack ci ay quartiers yu fasantikoo rawatina ci Medina Maulana Cheikh Ibrahima Niass waaye rawatina tamit ci quartier yi nga xam ne ñoo nekk ci Kaolack ci Fass Cheikh Tidiane ci Darou Rahmati ci Coof ak suñu nekkee di lim dafay gudd waaye mbooleem fu suñ kàddu àgg rek ci ndigalu sëriñ bi ñu ngi leen di oo ci bës boobu nga xam ne jotaay bu màgg di ko defee di di ko jagleel ki nga xam ne suñ sëriñ ci bésu juddoom di la 15 novembre ndax li may wax bër bu set ne Cheikh Mansour jàngal nañu ni taalibe di ziyaare sëriñam ndax moom dundam gi yëpp def koo xitmaal ziyaare ko sëriñam di sëriñ Mouhamadul Mamoun ndax bés bii su jege woon iteem yi soxlaam yëpp daf koy jagle ci bés boobu di bésu sëriñ Mamoun di jilaxaar daraam du ko fekke jàngal nañu ko ñun taalibe yi kon nag ñu ngi oo taalibe yëpp ñu fu lu jëm ci bés boobu nga xam ne bésu nangu ñaan la bés boo xam ne fu wàllu yi toog rawatina cheikh Mouhamadul Baye Mamoun Niass nga xam ne ku ko xool gis Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ci moom jëmm ji fu mu teew lépp loo tawasul ñaan ko yàlla yàlla nangul la ko ñu ngi ñaan ci jëmm jooju nga xam ne képp ku wax rek ak loo bëgg a wax ak loo waxul lépp moom yàlla xamal na ko ci xool ci mbëggeel ci lim am ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass nga xam ne ku mu xool rek sa aajo faju na kon nag ñu ngi oo taalibe yépp ñu rëg-rëg ànd ak moom buur ak moom jëm ca ndakaaru nga xam ne ñaan la ak yokkute ak dolleeku ndax sooy ziyaare wàllu yàlla dolleeku la sëriñ bi ñu ngi sant ñu ngi gërëm ci lii nga ñu xam ne may nga ñu ko pour ñu jàllale message waaye tamit ñu ngi ziyaare duñ tëb mu tëj mukk te ziyaare wuñ tamit njabootu sëriñ Mouhamadul Mamoun ci ak njiital xalifaam di sëriñ Mouhamadul Mamoun mu cheikh Mouhamadul Mansour ñu ngi lay ziyaare suñ la ziyaare ziyaare nañ buntu njaboot gi yëpp ziyaare nañ buntu taalibi yëpp. ñu ngi sant ñu ngi gërëm di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.